musique je dirais plutôt parce que c'est pas la taille euh, HLM mais c'est la façon de faire. <laughs> Boy HLM dëgg Euh... hiver ta moomul boy. Euh, basket Waouh je suis dans la production technicienne quoi euh, je dirais plutôt les deux sans pression parce que c'est mon quoi ça ça domaine là parce que le fait d'animer aussi euh, c'est manager hein, parce que dans les gérer plateau en même temps donc Ben là quoi Ben dem moromam euh, contre attaque rôle la moi jouer juste plateau mais dans la vie naturelle je suis je suis bijou pas gentil cool un hein, zéro stress franchement parler dress samay star hein ñoom ñett ñëpp parce que 10000 000 problèmes maa ko njëkk ci plateau police xam nga danaka yar ko ci affaire yu bari sama fils la quoi police Ouzin Keita sama star la Salé je suis déjà aimé hein. euh, je préfère être aimé très tardif tard sama yeuf la fo né loolu lañ ma doon wowe Sen TV tardé sa yeuf la jour bi may gëna a njëkk teel a yeewu jour laay gën a mooy loolu. à chaque fois man sama plan A moy dox ah. parce que bala may dugg ci dara je suis très pragmatique. dama xam ne lii la man def dox dem ci. lu worul lu ma dugg bala plan B dama ci check accès worul je suis très jalouse sama visage changé na sax gis nga loolu. maa ngi am ci m'a ngi tiit sax pour man monsieur ndaw mi ngi ci lépp. parce que damay xalaat ay affaire damay créer sax ay histoire ah monogamie mais nak taalibe Serigne Touba la quand même murid sadix laa et puis mais franchement parler ci sama bir xol je en tant que tel pas taalibe bi je suis monogame je déteste la polygamie

derrière les écrans je suis très funny les gens me jugent quoi l'apparence est toujours trompée. mais derrière les écrans ça c'est bijou les gens qui savent quoi bon je suis, très clean hein. je suis quitte avec ma conscience on ne peut pas satisfaire tout le monde Oui, bandi Oui, ah <laughs> parce que xol à chaque fois mën boo ko toppee mën nga juum dangay juum a chaque fois sa xol boo ko toppee dangay ngay juum man lépp lu may def dama ciy dem ak xel ba ci àndandoo boo xalaat ci àddina ku ñëw ci man dama lay accueillir normal ak xel ak état d'esprit bi ngay ñëwee ci sa cycle laay àndee ak yow moo tax j'ai dix mille cinq cent fréquentation weer bu ne ak ki may àndal j'ai pas d'amis I love booy jàll ci leneen

Euh, booy ba may xaar cent mille suba ba dal dix mille waaye mu suba lu ma ci wóor yaa ko wax ci kàddu laa ko tënk rek dama lay jugé comme sama bopp dix mille tey wala cent mille suba lu ma leen dix mille li ma ko jox léegi booy bant ya temps la bant ya dafa yomb fukki dërëm ngay jég-jég rek lekk cinquante mille I speak English very well <laughs> mat mat es laa def série es laa def scientifique laa damay bësi bouton euh, la télé ah j'ai jamais fait la radio couche tard, réveille tard. bisou, des bisous. tard. commencé, mais deux s a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je dirais, c'est pas dit saint je pèse bien mes mots. Deux s a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Parfum. J'ai 134 parfums. Mon meilleur parfum actuellement, actuellement, parce que oui, bu de ak pour me changer. Là, là, là, Belvedere. Taf, taf.